بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di tàmbaliwaat di jël tey dars ci usulu salaasa tey ñoo ngi jël maarifatullahi wa maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na wa huwa maarifatullahi wa maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam kon jullit bi war na xam yàlla war nga xam yàlla ndax du jaadu nga ne da ngay jaamu sa borom te xamoo ki ngay jaamu waaye xam yàlla bi ñuy jàng tey ak xam yàlla bi ñuy dégg bis bu nekk ci dëkk bi dafa wuute lan moo leen wutale bii war nga xam yàlla pour nga mën koo jaamu kay yaariful abdu rabbahu pour doomu aadama yi xam boroomam nan lay fexe ba xam ko yaarifu bi ayaatihi wa maxluqaati ni ngay def ba xam yàlla mooy ci ay aayeem ak ay mbindeefam aaya yi mooy guddi ci aaya yàlla yi la bokk wan nahaar bëccëg ci aaya yi la bokk mbindeef yi jant bi ci la bokk asams wal qamar kon ñaari mbir war na tax nga xam yàlla bi ci njëkk mooy aayaati yi aaya bi mu la ci jox misaal jox na la guddi jox na la bëccëg est-ce que ci ñaari yooyu lañ mën a yem ci aayaat yi kan moo may jox yeneen kon ci lañ mën a yem comme kenn mu leen indi yeneen ci lañ mën a yem aaya yàlla yi kenn gisu ci dara lu dul guddeeg bëccëg taw ci aaya yàlla yi la bokk asamaan ci aaya yàlla yi bokk wala ci mbindeefam yi jant bi ci aaya yi la bokk wala ci mbindeef yi dafa am yoo xam ne ay aaya la am yoo xam ne ay mbindeef la yàllaa leen bind nii nga ciy teg sa bët yi ngay teg sa bët bokk na ci weer da nga koy teg sa bët jant da nga ciy teg sa bët nit da nga ciy teg sa bët waaye guddi nag kenn du ci teg bët lu moo tax mu nekk aaya bëccëg kenn du ci tëg bët war mu nekk aaya ak lan ngelaw li ci aaya yàlla yi la bokk parce que doo ci tëg bët tàngaay ci aaya yàlla yi la bokk seddaay bi ci aaya yàlla yi la bokk parce que doo ci tëg bët neige bi salj yow yaa ngi koy tëg bët biddiw yi kon ñaari ngi noonu war yoo xam ne war nga koo jàng nga xam yàlla subhanahu wa taala mu ne yaarifu bi ayaatihi alkawniya wa ayaatihi alquraniya ñaari mbir dina la dimbali nga xam yàlla yenn yi ci àddina bi la nekk yenn yi ci alquran la nekk fa ida qara alquran soo jàngee alquran arafa allahu nga xam yàlla subhanahu wa taala ku jàng alquran nga xam yàlla moo tax man leen xam yàlla bi ñuy woote ci dëkk bi ak xam yàlla bii du benn puisque bii da ngay jàng ba xam benn dañ lay jox ay wird nga wird gis ay jinne jinne yi ne la ñun ñooy yàlla nga ne gis naa yàlla nga commencé naan xam yàlla bii nag da ngay jàng alquran ñu leeral la ko faram-fàcceel la ko nga dégg ko nga xam yàlla subhanahu wa taala mu ne annahu huwa allazi xalaqa samawati wal ard soo jàngee alxuraan nga jàng nga dégg suñ la ne ku bind asamaan koy wax yàlla fan nga ko teg fan ngay teg sa dalil ne yàlla bind asamaan moom yàlla moo ko wax moo ne xalaqa samawat wal ard man maa sàkk asmaan sàkk suuf wa annahu huwa allazi saxara ma fi samawati wal ard yàlla moo tàggat lépp lu nekk asamaan ak lépp lu nekk suuf lan moo nekk kaw asamaan biddéew yaa ngi fa janti baa ngi fa weer waa ngi fa ah ñooy rek moo fa nekk loolu rek moo fa nekk loolu rek moo fa nekk loolu rek moo fa nekk la fa nekk kenn xamul nu mu toll malaaka yonent yi naka lañ nekk asamaan yonent yi nekkuñu fa yonent yëpp dee nañ mu ne moom yàlla wa annahu huwa allazi yuhyi wa yumiit yàlla mooy dundal yàlla mooy rey wala am na kuy dundal kuy rey ku dund ku la dundal ku dee ku la rey yàlla kon yàllaay dundal yàlla mooy rey ku dund yàlla la dundal ku faatu yàlla moo la faat wa huwa moom yàlla ala kulli shay'in qadir moom yàlla moomu lépp la mën mu ne wa annahu rahmanu rahim moom yàlla mooy yërëm moo tasaare yërmande ci àdduna waaye mooy yërëm jullit ñi àllaaxira fa alquran yuarrifu billahi alquran mooy xamal nit yàlla benn borom xam-xam nee na la aqida illa bil aqli loolu mooy lan la aqida illa bil aqli lan mooy aqida pas-pas nit du mun a am pas-pas bu wér bu muy gëm yàlla lu dul xelam mu am xel wala al aql illa bil iman doo mën a am xel lu dul nga am iman wala al iman illa bil maarifa doo mën a am iman lu dul nga am nga am xam-xam gis nga xam-xam fam la la yóbbu ci iman mu ne wala al maarifa illa bil quran kenn du mun a am xam-xam lu dul nga jàng alquran moo tax ma leen jàng leen alquran waaye nag yàlla def ñu nat suñ newul jàng leen kenn du jàng buñ newul jàng leen buñ gàddul jaas yi ne jël leen téere yi gàddu sirmiñ yi kenn du laal téere yi buñ ko tegee ngeen teg bu ñu noppee ngeen noppi suñu ustaas daf ñu doon wax mbott xam ngeen mbott kan ci yéen moo mos a gis mbott yéen ñëpp mos ngeen gis mbott mbott taat bi dafa nekk ci suuf wala ci kaw la nekk ci suuf boo ko yëkkatee boo ko bàyyee mu defaat na mu teguwaat ci suuf yéen ñëpp ay taatu mbottu ngeen buñ leen yëkkatee ngeen demaat ci suuf ñu yëkkati ngeen teguwaat ñu yëkkati ngeen teguwaat jullit dafay rus a nekk taatu mbott mu la ne tey jàngal wala ñu ne la jour bi am nga dars wala ñu ne la heure bi am nga ci dàngam fexeel heure boobu nga gàddu sa téere ñëw taxaw waaye fi mu nekk àllarba ak samedi yi ak dimanche yi bu ma gàdduwul jaasi kenn du laal téere alaysa kazalik bala mbokk yi nañu xam ne alquran mooy tax ñu xam yàlla wa annahu huwa allazi an'ama alayna bi jamii niami xéewal yi ñu am mbokk yi kan moo ñu ko may xéewal yooyu bi ci gën a rëy mooy yàlla moo nu bind def ñu ay nit ba pare mu def ñu ay jullit ba pare mu def ñu ci lislaam xéewal yooyu moo gën a rëy ci yàlla lu mu ñu defal suñu yàlla defoon fi nekk ay mbaam lu ñu ci mën ah wala yàlla def ñu ay muus wala ay xaj wala ay fas loo ci mën bi la yàlla di def nit ndax da ngaa bind lettre demande ne ko yàlla def ma nit wala dafa am loo ko fay kon nañu sant yàlla ci xéewal yi muy defal wa annahu huwa allazi xalaqana moom yàlla moonu bind wa razaqana moonuy wërsëgal fa iza arafta alquran arafta rabbak boo xa jàngee alquran nga xam sa borom gi nga fi nekk tar jàkka ja tafsir kenn du ñëw ku ñëw xam nga lu la indi ku ñëw tafsir samedi lu la indi lu la indi yow tafsir samedi ku ñii ñëw lu leen di yóbbu xaalis xaalis xaalis moo leen di yóbbu am na ñoo xam ne ñoom xaalis sax moo leen di indi waaye am ñoo xam ne ñoom dañ dul sax ñëw am ñoo xam ne xamuñu jàkka ji fu mu nekk ñoom samedi ci ngoon rek gàddu nañ seen bagage ba daw ndax bañ ñu ne leen jàng leen ñoo ñëpp am na fi waaye ñoo ñëpp lu ma leen waxoon rek moom laay waxaat naa bis dina ñëw ay ay ay ay at mu ngi ñëw sunu kanam ñu bari ci yéen di ngeen jooy ndax mbir mi da leen a yomb ngeen koy fawe waaye bis bu ngeen demee ba mu jafe leen bis bu ngeen demee ba ngeen soxla ko ngeen xool kanam xool ginnaaw ngeen gis seen moroom yëpp romb leen ñëpp nekk ay borom xam-xam Hmm. ngeen ne allahu akbar ñii ne kaaw waxoon na ko ñii ne sam papa waxoon na ko Hmm? mbokk yi kon na ngeen xam ne na ngeen xam ne kon mbir mi noonu la demee mu ne fa iza qara'ta alquran boo jàngee quran arafta rabbaka nga xam sa boroom subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi nga xam yàlla subhanahu wa taala ci ay ci ay ci ay turam ak ay melokaanam ak ay wa afaali ak ay jëfam nga xam yooyu yëpp bi asma'ihi wa sifaatihi wa afaalihi nga xam yàlla ci ay turam ak ay melokaanam ak ay mu ne fa iza nazarta fil kawni arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala wa iza araf wa iza nazarta fil kawni boo xoolee univers bi addina bi arafta rabbaka nga xam sa boroom subhanahu wa taala boroom màgg gi kon bi nga jàngee alxuraan lan la la alxuraan jural xam nga sa boroom bi nga xoolee univers bi mooy àddina bi xool asamaan xool suuf xool biddéew yi xool weer yi xool jant bi xool xool nga xool dex yi nga xool garab yi nga xool lépp aleykum salaam ah wa annahu huwa allazi xalaqa haza alxalqa nga gis ne yàlla bindi lépp xalaqa moo bind haza alxalqa moo bind mbindeef yi ngay gis wa saxara haza alkawna moo tàggat àddina bii ngay gis lépp sun borom subhanahu wa taala moo la ko tàggatal kon gis nga alxuraan fi mu la yóbbu waaye tamit azuna bi am na fu mu la yóbbu ndax du xelu nga xool asamaan bi amoo loo ci jële nga xool suuf si jële woo ci dara nga jàkkaarloo géej gi jële woo ci dara nga xool jant bi jële woo ci dara nga xool weer wi jële woo ci dara nga xool mbindeef yi ci àddina bi ni ñu bëree jële woo ci dara loolu loolu du xel moo tax yàlla bi mu ñuy wax dafa ne inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albaab li ulil albaab ulil albaab ñooy ñan borom xel yi kon yooyu daf ñuy jural ñu xam yàlla subhanahu wa taala moom yàlla mooy ki nga xam ne moo ñu may xam-xam boo xam ne suñu xoolee mbindeef yi rek xool li yàlla def ñu jëlee ci xam-xam boo xamante ne day wér ne lii yàlla moo ko def loolu mooy lim la wax ne wa iza nazarta fil kawni arafta rabbaka subhanahu wa taala wa annahu huwa alladi xalaqa haza alxalqa kan moo bindu mbindeef yi wa saqara haza alkawna kan moo tàggat àddina bi wa ajraahu bi bi hikmatihi wa ilmihi yàlla ci xereñam ak xam-xamam la tàggatee lépp lu ngeen gis xoola jant bi bi ngeen dundee ba léegi jant baa ngi daw di tàkk wala am na bis bu mu coupé boobaa Senelec ñëw di ko defaraat ah bis bu nekk ngeen gis ko mu ngi tàng ah xëy daal di so weer wi génn guddi am bëccëg am kan mooy def loolu yàlla ndax da ngeen mos a gis kenn taxaw ne man maa koy def man maa indi jant bi fii man maa indi ngelaw li doo ko mos a dégg mu ne beneen dars bi mooy qawluhu wa maarifatu nabihi ni ñu xamee yàlla noonu la ñu war a xamee yonent bi kon ñaari mbir moo ñuy dimbali ñu xam yàlla ban ak ban la ñaari mbir moo ñuy dimbali ñu xam yàlla ban ak ban la alquran ak xool mbindee fi yàlla yi kéemtaani yàlla yi ñaar yooyu moo ñuy dimbali ñu xam yàlla beneen bi mooy maarifatu nabi yi ñu xam yonent bi moom tamit ñu xool naka la ñuy def ba xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li anna huwa al muballigh anillah lan moo da war a tax ñu xam yonent bi ndax mooy yonent bi mooy jottalil yàlla yàlla li mu bëgg ci ñun kan moo ñu koy jottalil yonent bi yonent bi mooy ñëw nañu ah yàlla nee na ngeen julli yàlla nee na ngeen woor yàlla nee na ngeen joxe azak yàlla nee na ngeen aji màkk yàlla nee na ngeen dëggu yàlla nee na ngeen bàyyi fen yàlla nee na yàlla nee na yëpp yonent bi mooy ñëw di ñu ko jox li yàlla bëgg ci ñun yonent bi moo ñu koy wax li ñu yàlla tere yonent bi moo ñu koy leeralal ba ñu bàyyi ko wa huwal waasitatu baynana wa bayna allah kan moo nekk suñu digganteeg yàlla amul keneen de yonent bi kese la du sunuy papa du sunuy yaay du sunuy maam du kenn sunu digganteeg yàlla kan moo fa nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi tablighi risala yonent bi moo ñu jottali message bi ñu yàlla yónnee kan moo ñu ko jottali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam idan la budda mbokk yi an naarifahu il faut ñu xam yonent bi kon taarifu man huwa ah il faut ñu xam yonent bi mooy kan wa taarifu nasabihi ñu xam askanam wa taarifu baladihi ñu xam dëkkam wa taarifu ma jaa bihi ñu xam li mu indi léegi nag ñun fii problème bi ñu am mooy ñaata xam-xam la ñu war a xam ci yonent bi maa ngi koy lim war nañu xam yonent bi mooy kan ñu xam askanam ñu xam réewam ñu xam li mu indi waaye ñun fii ci réew mi ñetti xam-xam yi ban lañ ci yem ñun benn bi rek askan bi rek boo waxee rek ñu ne mooy yonent bi kaay na sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Abdalaay mooy baayam Amina mooy yaayam gis nga yooyu rek gars yi di is kay ñun daal fii lañ yem waaye li mu indi boo ne yonent bi ne ñu ne déet déet déet déet yow kañ nga fi jàng yow kañ nga fi màgg yow kañ nga fi juddu nga naan yonent bi nee na yonent bi moo la ko wax moo la ne moom moo ko gis nga kenn bëggul li yonent bi ndeke yonent bi ñett lañ war a xam ci moom waaye war nañoo xam moom ci boppam mooy kan war nañoo xam askanam war nañoo xam réewam war nañoo xam li mu indi taarifu kayfa badaa hul waxyu ñu xam waxyu bi di ñëw kañ la commencé wàcc ci moom alquran kañ la ko yàlla jox wa kayfa qaama bi daawa ila allah yonent bi naka la taxawee ci xeex ci jottali li ko yàlla yónni woon daawa bi muy woote yonent bi lan la ci daj est ce xam ngeen yonent bi li mu daj ci daawa bi xam nga ko jàngoo ñu ne yonent bi da moo doon woote màkk yéeféeri jàngalool yow jàngalool jàng ko jàng ko jàng ko jàng ko yéen ñëpp jàngeen ko lan la daj lu sedd wala lu neex wala lu tàng ah lu metti la daj yow yow loo dajagum est-ce que yow daj nga lu yonent bi daj yow nag yow nag yéen ñii toog fii kan ci yéen moo daj tuuti ci la yonent bi dajoon tuuti tuuti daj nga ci dajoo ci tuuti yow dajagoo ci dara yow nag dajagoo ci dara yow nag dajagoo ci dara yow nag dajagoo ci dara yow nag yéen ñëpp kenn dajagu ci dara parce que jaaru leen yoon bi mu jaar parce que jaaru leen yoon bi bu ngeen jaaru yoon bi rek li ngeen di nekk ay xale xale xale di ngeen ci daj dara ñun de daj nañ ci dara ñun ñii daj nañ ci li yonent bi daj tuuti tuuti tuuti gàllax daj nañ ko ci parce que ñun dañoo jaar fi mu jaar yéen nag comme jaaru leen fi mu jaar du ngeen mën a daj li yonent bi dajoon bi muy woote mu ne wa fi makka wal madina la mu daj ci makka ak la mu daj madina sallallahu alayhi wa sallam mu ne taarif encore sirat ar rasul wala ñu am xam encore biographie war nañ ko xam walaw bi ixtisaar donte ne dafa gàtt war nga cee xam dara ar rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi huwa moom muhammadun mooy muhammad lan mooy muhammad lu muy tekki mooy ku ñu gërëm bi mu juddoo maamam moo ñëw fab ko mu nekk liir mu wër ak moom kaaba gi juróom-ñaari yoon daan ne sammaytuhu muhammada ñu ne ko lu tax mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard tudde naa ko muhammad lu tax mu ne ndax yàlla def ko ku ñu gërëm diggante asamaan ak suuf tur boobu mu ko tuddee woon am na wala amul nekk na ku ñu gërëm diggante asamaan ak suuf kon mooy muhammad kan mooy papaam abdallah abdallah boobu kuy papaam abdul mutalib abdul mutalib boobu kuy papaam gis nga haasim haasim boobu kuy papaam abdul manaaf abdul manaaf boobu kuy papaam kilaab kuy papaam noonu nga koy toppee noonu nga koy toppee ila axiri nasabi nabi allazi yantahi ila ibrahim alayhi salaam ba ci feew ki mujj ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu nga koy toppee ba ci ismail ismail daal dem ci ibrahim mu ne wa taarif kayfa aasha war nga xam war nañ xam yonente bi naka la dundee naka la yonente bi doon dundee war nañ koo xam xablal bi isati balaa yàlla di ko yónni war nañ xam loolu wa kayfa jaahu lwahyu min allah wahyu bi ko yàlla di jox war nañoo xam naka la ñëwee ci moom wa maza amila ak lan la doon def alayhi salaatu wasalaam baada bi isati ginnaaw bi ko yàlla yónnee yooyu war nañ koo xam taarifu zalika bi dirasati sirati naka lañ koy xamee moo ñu jàng ko waaye bu fekkee duñ ko jàng dañuy mujj nekk comme ñu nekk ci mbedd yi di tambaambaalu rek buñ ne yonent bi rek nga ni sallallahu alayhi wa sallam est-ce que est-ce que est-ce que mooy ñool màkka mooy borom barrière or bi est-ce que yooyu yooyu amul njëriñ yooyu amul benn njëriñ ah waaw waaw yooyu gars yi doo mooy borom xol bu rafet beeg mooy seen caaxaan yooyu ñu nekk yooyu amul benn njëriñ yooyu nag da ngeen di fexe ba du leen dal te da ngeen di jàng ngeen xam dëgg kan mooy yonent bi ngeen xam dëgg yonent bi lan la daj ngeen xam yonent bi lan la fi indi ngeen xam lan la bëggoon ngeen xam lan la jàngale ngeen xam lan la doon dund ngeen dund loolu bañ ko def rek ay fettasu ak ay tàccu ak fecc yonent bi kenn yàlla waxuñu pour nañ fecc ci ay mbiram yàlla jàngal ñoo ne day leen fecc ngir yonent bi da ngay gis fi gars yi di woy yonent bi ne jóg leen fecc ngir yonent bi gars yi jóg di di fecc loolu amul fenn loolu du diine yonent bi yàlla yónni ko pour fecc yàlla yónni ko pour ay woy yàlla yónni ko pour ay tàccu yàlla yónni ko pour fettasu yonent bi yàlla daf ko yónni pour mu jàngal ñu diine bi pour mu nekk suñu royukaay mu nekk modèle mu ne wala yaliqu bi muslimin an yajhala rasul mbokk yi ndax yàlla na nit réere baayam sa papa jur la ba pare nga réere ko xamoo ko ndax yàlla na ndax yàlla na nga réere sa yaay sa ndey ji la jur yàlla na nga réere ko ndax yàlla na nga réere say mbokk ah est-ce que kon yàlla na nga réere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du yell moo tax mu ne wala yaliqu du yell bil muslimi cib jullit an yajhala rasula mu réere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon war nga xam mbokk yi kayfa tattabi'u saxsan wa anta la taarifu kayfa tattabi'u saxsan wa anta la taarifu kan ci yéen mooy topp yonent bi anamu yow la ak kan ah yéen ñi yéenay topp yonent bi waa léegi naka ngeen di toppee koo xam ne xamu leen ko su ngeen bëggee ne da ngeen di topp yonent bi kon da ngeen koo war a xam naka ngeen di toppee ku ngeen xamul mu ne haza gayru maqul mbokk yi loolu xel nanguwu ko loolu xel nanguwu ko topp koo xam ne xamu leen ko loolu xel nanguwu ko kon na yell ngeen xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen sànq li ngeen war a xam ci moom mooy ngeen xam moom moom mooy kan ngeen xam askanam ngeen xam dëkkam ngeen xam lan la indi ngeen xam laka la tàmbalee bi ko yàlla di jox waxyu ngeen xam li ko yàlla joxoon waxyu bi laka la ci taxaw na ci la ci liggéeyee lan la daj ca màkk ngeen xam histoire am lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt ndax kat koo xamul mënoo koo topp xel nanguwul ngay topp koo xamul xel nanguwul sab yonent bu tol ne Muhammad xamoo ci moom dara lu dul màkk la juddoo Abdalaay baayam Amina yaayam jërim la woon yaa rasuula laaj loolu kese loolu moom du wax yonent bi dañ ko war a xam ndax moo ñu war a gënal suñu bopp gënal ñu sunuy doom gënal ñu sunuy ndey gënal ñu sunuy baay gënal ñu doomu aadama yëpp kon lii mooy darsu tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin wa yaakum ku ci am laaj balaa ñuy def